ملكت ما كان لي بغير مبتغيا mbokk yi asalaamaaleykum wa ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar euh, ñu ngi fii nag euh, ci kanamu Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada gannaaw liggéey bu yaatu bi nga xam ne nii dooroon na ko di tournée boo xam ne ci diaspora bi la Europe Amérique jeexalee ko Espagne gannaaw tournée boobu nag ñu am yéene rek tàllal sunu mikro ki nga xam ne mooy sëriñ Mamor ngir. kilomètres yu bëri yooyu nga xam ne ni dox na ko yaakaar naa ne ñu ngi doon <laughs> saytu Espagne gu mujj gi rek ñu naan euh, lu toll ci huit mille kilomètres euh, te boole wuñ ci Italie boole wuñ ci Amérique sëriñ bi ñu bëggoon a xam rek euh, gannaaw périple bu yaatu bu yàgg boobu yan jàngat lañ ci war a def ak lan ngay wax ci ñi nga xam ne nii ñoom nga fekki woon Eh, te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bàyyi seen i yitte yëpp nag eh, taxaw ba xëy na liggéey ba nga fa doon def rek lépp loo xam ne day tax mu yomb ñu ñu taxaw ci guddi taxaw ci bëccëg ñu di laaj rek sëriñ bi eh, gan jàngat lañu ñu war a def ci tournée internationale boobu nga xam ne Espagne la jeexee. waa jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñoo ngi leen di gërëm bu baax di sant bu baax di am occasion sax pour mën a sant. ñooñu nga xam ne ñoom lañ seqaloon tournée bi te may wax na ñoom ñoom ñoo ko ñoo yor liggéey bi ñun dañuy dem rek di xool muy mboolem dëkk yooyu nga lim muy euh, ci Europe ak ci Amérique euh, bu dee ci Europe muy Italie ak ci France ba Espagne ay ba ba ci ay Portugal ba egg ci États-Unis d'Amérique ak. Euh, Euh, Bruxelles maanaam Belgique ak yu demee noonu Hollande ak dëkk yooyu Europe daal ci dëkk yooyu yëpp tournée yi ñu ci def kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax di am occasion ni ma ko waxee di euh, sant ñooñu ndax tamit suñu sañoon sax ñu jaar ci tur yëpp waaye danañ ko wax ñu jox la fiñ barab yëpp turu jawriñ yi bu ko defee nga lim na ñoom sax loolu taxul leen ñu leen yitteel leen wante nag pour ñu xam ne tamit yi eh, loolu daf ci bokk. kon bu ñu tàmbalee fii ñu mu jëm mooy Espagne fanaa fi lañ jógee barki démb euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax tàmbalee ko ci jawrin yi muy Madrid muy Palma bi ñu commencé woon ba fi ñu tëjee Barcelone di leen ndokkeel it ci taxawaay boobu ak loolu nga xam ne mooy xalaat bu am solo mooy fexe ba dajale ñëpp ndax ñoo bokk luñ bëgg mooy liggéeyal rek lislaam ci biti ci tu ci sëñ Tuubaa euh, ñu ngi nuyu mboolem ñum seqal liggéey bi jawrin yi ci dëkk yëpp nag. moo xam fañ tàmbale woon Palma bi ba fi jaar fépp nag diggante ay ay ay ay ba ci ay Malaga ak Madrid damay bañ a lim dañ lim tur yëpp bu soob yàlla ba ci Ibiza ci sëñ tàmb ili ili yi nga xam ne fa lañ tàmbalee di leen sant bu baax ci taxawaay euh, di leen balo àq tamit ci ni ma ko waxee euh, ba dem Portugal tamit ci jamono ji nga xam ne moom lañ jóg di ko di doon tournée bi ndax xam ngeen ne yéen wax naa leen ne ci septembre bi buñ mosaan jóge ci ñaari nak ndar yi ci la ñuy jóge foofu rek tàmbali Espagne suñ fa jógee dem dem dem France Europe France ak ay Allemagne ak dëkk yooyu euh, ren nag yàlla def ñu ñu ñu far njëkk yooyu biñ jógee itali ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay ba Euh, dañoo daal di dem France moo tax bi ñu jógee Amérique rek ñu ñëw dem Espagne moom kon ci Espagne bi ñu mujjee ci laay tàmbalee euh, loolu tamit kon li may wax mooy ñu ngi leen ci balo ak ndax li tax mooy euh, ñoom ñëpp xam nañ ne dëkki tubaab yi ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey moo xam di liggéey ci liggéey seen doole wala ñuy liggéey ci seen di def seeni commerce lu ci baree bare état bi daf ci am solo lool mooy jamonoy ut jamono boobu. Euh, nga xam ne ñu ci bari dañu doon wax ne septembre daal mooy jamono yi nga xam ne ci la ñuy fekk ñoom ñu pare ci seen état bi wala mu woyof bu ko defee ci la nit ñi ma di mën a di mën a di mën a gën a mën a am jot loolu rek ci laa leen di sant bu baax ndax mayit euh, li may wax rek toujours li ñu boole ñoom du ay été wala hiver wala leneen te dafa mel na sax li ñu li ñu tudd été mooy jamono bi nga xam ne ñoom ci lañ jàppewoon na ci la ñuy ñàkk jot dafa mel ne mbooleem fi ñu daan dem lañ daan lañ daan fekk dafa yokk li ma ci wax ci foofu rek mooy ginnaaw bu ñu leen ci ndokkele mooy wane ne rek ne li ma tax a jóg moom laa tax ak lañuy ñuy ña tax a jóg hmm. ndax bu fekkente ne ñi ma tax a jóg mooy sëñ Touba te ñoom ñu nekkal fa sëñ Touba may itam may wax ne toujours bu fekkente ne amul dara lu ma ci rax ci sama yëfi bopp sëñ Tuubaa ma yëkkati mooy lislaam ak dajeek ñoom ñi fa ko fa nekkal bu loolu amee bu bu ma nel suba laay ñëwit bu ma demee mbooloo moom fa daan fekk day yokk waaye du wàññeeku léegi yàlla def noonu la demee tamit nag kon mu mel ne kon ñun li ñu boole day loo xam ne ah, tënkuwul ci benn waxtu tënkuwul benn saison tënkuwul ci benn jamono mu ngi tënku ci pas-pas bi nga xam ne moo nu boole mooy man mii jóg. te li may jóg awma ci looy xam ne na loo xam ne moom laa ci wut du lu may wuti ci ñoom di dàkk waxtu wi ñuy am ak buñ dul am eh, ñoom ñi nga xam ne ñoom laay fekk mm, xoolu ñu ne liggéey lañ lan la tax ñu ñu fa nekk fa xam nañ ne bu doon wutum alal kon bu dee ñëw waxtu liggéey waxtu wala wala waxtu commerce bu ma ñëwee day dem ci dañuy dem ci seeni commerce kon nun ñaar ñëpp defe naa loolu moo yombal liggéey bi ba kenn xàmmeewul dañuy defe na sax ci bii defe naa ne loolu la wax ñoom ci la gën a nit ñi ci lañu ñu gën a gën a gën a gën a gën a takkoo ci la ñu gën a gën gën a bare kon nag loolu lépp ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci ndokkeel rek di xam ne rek loolu mooy li am solo kon yàlla na leen yàlla gën a sàmm te tamit mu mu may leen li ñu soxla ndax yàlla li mu yor tënk ko ci benn weer wala benn bés wala benn dara waxtu wu ne mën na ko jox kon yàlla leen ci jox la ci faj seen aajo ci barke seen Tuubaa di sant itam mboolem ñi nga xam ne mooy jullit yi ñu ko seqal. ndax këri diine yi tamit fépp fu ñu fi dem amuñu ci xàjj amuñu ci seen dañuy ñëw ànd ak ñun am rafetlu lool ku fa nekk tamit nekkal fa sunu mag kilifa diine yi tamit da nga xam ne am nga fa cër sa cërit da koy matal bu baax seen njaboot ga fa nekkit matal seen cër kenn ku ci nekk boo ñëwee doo yëg ne fii kat këru jàmbur la da nga yëg ne sa kër la loo fa war a wax da koy wax loo fa war a def da nga koy def ña nga fa fekkit ubbil la bunt wan ne leen fii këru lislaam la te këru lislaam mooy këru sëñ Tuubaa loolu itam loolu nga xam ne mooy liñ fa gis muy loo xam ne lu am solo la te lu mat a xamle la lu mat a téye la tamit nag euh, loolu tamit ñu ngi ciy ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq mooy mboolem jullit yooyu nga xam ne ñoo seq loolu muy këri diine yëpp di ko yëgal it ki seen kilifa yi kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yëpp ñu xamal leen njaboot gi ñuy fekk ci bitti daal ñoom dëggal nañu wala téye nañu li taxoon sunu sunu kilifa yi jóg mooy defar nit euh, fexe ba ñu xam ne yàlla rek ak yonent bi moo leen tax di di dugal di di ànd ku nit ñoom itam tënku nañ ci loolu kon loolu tamit maa ngi koy seede di ko waxaale mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu seqal njaboot gi loolu ñu ngi koy ñu ngi koy kii euh, loolu daanaka kon bu ñu santee waa euh, Espagne ci taxawaay bi tam mbooleem jëwrin yi ak ñëpp nag. Euh, góor ñi ak jigéen ñi tamit ndax ñoom itam ñu ngi ci biir liggéey bi ndax xam ngeen ni fu daayira suñ Touba am rek daayira jigéen am na fa yoo xam ne noonu la noon noonu la noonu la demee woon naka jekk euh, ñu ñoom itam ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ndax fu ñu gis góor ñi rek mm, gis ni leen fu ñu taxawaay taxawaay bu tokk ci seen doole ci seen am-am ci seen man-man ci lépp loo xam ne ñoom seen wàllu bopp la waaye teewutit nag wàll nga nga xam ne. Euh, góor ñee ko yaayoo góor ñoo ko féete woo tamit ñu ànd ci ak ñoom ci seen alal ci seen doole loo tamit ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax ci di ndokkeel tamit autorité yi fépp fu ñu dem dañuy ànd ak autorité dañuy ñëw waxuma sax ñu recevoir ñu waxtaan ak ñoom waxtaan yu rafet waaye dañuy ñëw sax ci ci conférence ci ndaje yi toog ak ñun jël fa ay kàddu wax fa wax yu rafet ci Sénégal autorité sénégalaise yi fa nekk mooy amba consulat consulat yeeg ambassade yi tamit ñu ngi lay sant ndax toujours dañuy ànd ak ñun di di di leen di leen gërëm bu baax rek xanaa di wax rek ne liggéey bi rek loolu la ñu ngi balo àq rek ci taxawaay bi di ñaanal leen yàlla yàlla euh, faj seen aajo yëpp te xam ne lañ fay def rek moom lañ leen moo li am solo mooy fexe ba taxawal fa lislaam rafetal fa deru sëñ Touba ak nitu diine rafetal fa itam daru daru daru daru lislaam rafetal fa tamit seen deru réew euh, xanaa la ca desit mooy Italie moom tamit naka noonu bañ ko tàmbalee ci Brescia le 8 juin bi njëkk tàmbali ci île yi loolu lépp ak ñañ fa fekk ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñoom itam fédération ba ñuy tàmbali yàlla na ko yàlla sottal ñu mën a ànd nekk benn mën a organiser ndoo ñu ngi leen di sant ñoom ci seen taxawaay ak pas-pas bi nga xam ne saa bu ñëwee rek lu ñu fa fekk rek dañuy fekk lu ko yokk loolu it li ma ciy wax rek du ci ñun li ma waxee rek la feek nun jàpp nañ ne li ñuy def eh, la ma leen doon wax rek ne leen ñun suñ ñëwee Hmm, fekk seen barab yi mooy stade yi muy saal fekk fa ay junniy nit lanu seq ak yéen mooy li nga xam ne moo nu tax a jóg euh, sunu paree jeex na pour ñun jéem ñu faa nekk nii lañ toll yooyu moom du sunu mbir ñun liñ mbir mooy sëñ Tuubaa moo liggéey ab liggéeyam kenn jàpp ci jàpp nañ ne lu tuuti lu tuuti tuuti nag lañ ci war a mën a apporter mooy fexe ba di leen ko di leen di fàttali fexe ba itam xam leen ne la fi ne woon moo fi ne. leneen lu ñu gis loo xam ne tamit ak fu ñu ko mën a gisee bu safaanoog la taxoon sëñ Tuubaa jógit ñu xam ne loolu moom bokku ci loolu loolu yëfi boppam la loolu loolu itam ñu seq ko ak ñoom kon tamit ñu ngi sant suñu bokk ya fa nekk na nag ci dëkk yëpp suñu bokk yi mbàkke mbàkke yi fa ne di ay ay jàmbaar di liggéey bokk ak ñun Tuubaa ba noppi waaye boole ci di ñaq wala ci ne ci daayira ya di joxe seeni alal laxasaayu loolu lépp rek li ma ci wax rek la mooy toujours rek damay wax ne sëñ Touba ni mu def yàlla rek la ak yonent bu fekkoon te ne dafa ñëw moom itam fekk na ay bokkam di ay nit yàlla am kii waaye dafa ñëw moom itam wutal boppam kon tamit ñoom nii tamit buñ ca bokkee tamit téewul ñu wut bëgg wutal seen bopp loolu mooy am am am am li nga fàggul sa bopp mooy sa am am waaye lañ la fàggul nag kooku moom nit ku am dëgg dëgg dëgg xam lam bëgg sax du yem ca loola bu bëggee yëfi boppam bu amee lam amal boppam da koy ñàkk kon ñoom itam ñu ngi leen di ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu bu baax muy Italie muy muy France France tamit noonu Marseille ak seen kër ga Paris noonu bu ñu demee Bruxelles nga xam ne ñoom itam ren dañoo def seen seen mooy Luxembourg ak Hollande jàmbaar lañu lool ci daje bañ fa dajee. ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ay daayira ya fa nekk yëpp. ak états unis d'Amérique waa Amérique it jóge nañ fa ñëw ba fa jógee dem nañ fa moom tam ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp nag ak suñ mag ña fa nekk ak suñu mbokki mbàkki mbàkki ya fa nekk mooy ñu waa kër njabootu sëñ yi gi ma ko waxee foofu rek mooy ñoom itam jom ji ñu am di liggéey ca liggéey ba ànd ci mm, ba noppi euh, boole ko di di nekk seen nekk ci yëf yi. loolu tamit ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax di leen ci sant moom itam ñi ñi ci liggéey ba ña nga ca ñu ngi ci doon soññ rek ci ñu gën a taxaw ci di féliciter fondation ba fa nekk ñoom tamit dajaloo ba ak fédération ba fexe ba nekk benn di dajaloo mm, jafe-jafe yi ñu am ñu bokk lijjanteloo loolu tamit occasion la pour ñun ci Europe ndax tamit dama leen di wax ne àddina dafa am noo xam ne noonu lay doxee bu fekkente ne da ngaa nekk ci barab ak fi àddina bi doxee. ak force bi nu am nun parce que force bi nu am mooy force euh, comportement ak force gëm waaw nga xam ne yéen a bokk lu ngeen gëm te muy dëgg kooku mënul ngeen li ci des mooy seen force bu ngeen mën a dajale ci taawun boobu taawun dafa nekk loo xam ne mooy mooy ak ak ak li ñuy tuddee artisam bi alxuraan di wax yooyu day ñaar yoo xam ne nit ñëpp ko war a def ndax moom rek moom mooy di solidarité di jàppalante solidarité jàppalante firiwul nit ki am soxla nga dem jox ko sa ñaari dërëm nit ki faatu nga dajaloo sa ñaar loolu loolu solidarité la d'accord waaye solidarité may ngeen carrière loo xam ne dafay nekk nga xam ne saa bu jotee rek fekk na solidarité am na ba noppi. xam nga këri sëñ Touba yi sëñ Mourtada moo ko xalaat moo ko firiwul ñun xamuñu. Euh, beddi ko kalank affaire yooyu yàlla def na yarewuñ la ko sëñ Murtala moom du problème boobu amu ko xam na lislaam xam na sëñ Tuba gëm na xam na donc li muy lépp lu mu mës a def ci li loo xam ne social loo xam ne daf ko def pour famille pour boppam wala pour ëllëg non que loolu nit du ko def responsable du def yooyu gum bu mat moom moo karee woon këri sëñ Tuba ne lam ca wax mu wax ko mag ñett moo tax barab yu nuy jaamoo yàlla di fa daje ngir seen lislaam di fa yare xale yi loolu la waxoon yëkkati alalam def ci mu ngi ko njëkk a defee États-Unis 1989 ba ba léegi fanweeri at la yëkkati 55 mille dollars yóbbu fa def ko Italie def ko France def ko Allemagne yëpp xaalisam moo jiitu foofu mu wax ne nañ ko def waaye mosul wax ne nañ ko def ci sama tur te pourtant bu ko neexoon ne nañ ko def parce que këri sëñ Touba sëñ Touba la te sëñ Touba la moom itam. wante yooyu du indi du problème am bi mooy li tax sëñ Touba li tax ñuy wax sëñ Touba mooy lislaam sëñ Touba du du du boo xam ne rek da nga koy tudd parce que Mbàkke wala nanga wala ne dafa symboliser l'islam waa loolu nag kër yi dafa régler lu bari ci la ñuy daje seen daayira yi ku xew la lu nit xew la ci kër yi nga koy defee xale yi lépp fa lañ koy defee loolu kon bu fa amul woon dafa mel ni kon mënul woon ñàkk kon loolu mooy mooy kii bi mais ñu ne leen nag léegi tamit ni ngeen ko jéem a sàmm waaw loolu moo tax euh, ñu ne leen nag ñu sàmm ko bu baax it te euh, li ci sëñ bi doon waxit mu nekk kër lislaam liñ ci jublu mooy ma ne leen il faut tamit ñu fexe ba kër yi tënku ci loo xam ne ci sëñ Tuubaa lay doon maanaam ci ci ci du doon tënku ci turu nit buñ xalaatul ne ëllëg si biir nit mën naa taxaw ne Mbàkke la sant yëf yi maa ko maa fi jiitu nañ kër yi nañ ko jaay <laughs> bu fekkente ne nekk na ci alam goo xam ne kenn mënu ko jaay bu ko deful rek loolu lépp mën na am jërëjëf jërëjëf sëriñ Mamor ñu sant ko bu baax ci jataay bi nga xam ne may nañu ko fi yëkkati fi ay kàddu yoo xam ne yu am solo la waxtu wu nekk rek dañuy mën a jàng ci ay ay kàddoom waaye xam ngeen jataay bi jataayu sant la moo tax ci ndigalal sëriñ Mamor Mbàkke mu ngi sant mbooleem diaspora bi Europe Amérique fépp foo xam ne nii sëriñ bi teg na fa tànkam rek nee na mu ngi yëkkati kàddu cant yoo xam ne nii daf koy jëmale ci mbokk taalibe yi ak fu nu mën a nekk ma nga dooree tournée bi ca itali di sant mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk itali ndax fu ne jóge nañ fa fu ne daayira jóge na fa fu ne fédération jóge na fa sëriñ bi nee na yëg na loolu mi ngi sant taalibe yi di sant daayira yi di sant fédération yi di sant it confédération bu yees bi nga xam ne nii ci njiital sëriñ baraag loola cant gi nag da koy teg ci loxoom mu jottali ko mbooleem magu taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi waaye jottali ko it mbooleem fu taalibe nekk mbooleem fu daayira nekk mbooleem fu fédération nekk sëriñ baa ngi sant bu baax autorités yi nga xam ne ñooy kilifay dëkk ba kenn ku ci nekk ubbil na ko ay buntam ñenn ñi ñëw fekk si nañu ko lépp rek ngir ñu waxtaanee yitte yi nga xam ne mooy tax sunu mbokk yi nekk foofu seen nekk gën a ñoŋ sëriñ bi nee na mu ngi sant autorité itali yépp bàyyiwul kenn di sant corps diplomatique yi ambassadeur consul ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant waaye sëriñ baa ngi beral ak cant nag yeneen kuréel yi nga xam ne waxtu wu nekk ñoo bokk lislaam te lu ñu yëkkati biir Europe ñu ànd ko ak ñun jullit yëpp di àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo sëriñ bi nee na daal mu ngi sant bépp taalibe boo xam ne nii ak bépp jullit boo xam ne nii ak bépp kilifa boo xam ne nii yaa ngi woon itali te jàpp ci liggéey bii nga xam ne nii liggéeyal lislaam la liggéeyal sëriñ Tuubaa la sant bu baax it soxna yi ci seen taxawaay ak ndaw ñi bàyyiwul kenn noonu la valable ci France gi nga xam ne ba ñu fa demee it fépp foo xam ne dañuy taalibe nekk na fa jóge na fa ñëw fekk ci sëriñ bi ci jataay yi nga xam ne moom lañ fa jot a amal France nag ki nga xam ne moo jiite fédération bi mooy sëriñ Bamba Thiam sëriñ bi nee na cant gi mu ngi koy teg ci loxoom mu jottali ko mbooleem fu taalibe nekk biir France mbooleem fu daayira nekk biir France ndax bàyyeekoo nañ ci dëkk yu bëri te fasanti ko ñëw fekkee si jataay bi sëriñ bi nee na yëg na loolu cant gi it noonu lay demee ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk France di santit sunu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk lislaam te ñu nekk foofu ca France ñoom it fenn fu nekk ñëw nañu ànd ak ñun ci jataay bi di santit euh, fédération bi nga xam ne mooy Belgique ak Amsterdam loolu nag dañ koy teg ci loxo loxoy Serigne Abbas Dieye ak Serigne Khadim Mbegere mi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitee ndax ba ñu ñëwee foofu ci Anvers it fu taalibe jóge rek ak fu daayira jóge rek ak dëkk yoon jóge yépp ñoo ñu daje yaakaar naa ne ñoom it Serigne baa ngi leen di sant bu baax a baax a baax gis na seen taxawaay te mu ngi koy rafetlu noonu lay sant it kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk ca biir dëkk ba muy kilifa aada yi ak kilifa diine yi nga xam ne fépp sëriñ bi dem rek du ñu xool tarixa du xool dara dañuy xam ne ñoo bokk lislaam ñëw ànd ak moom ci liggéey bi loolu nag bokk na ci li tax sëriñ bi nee na ñu war leen sant war leen gërëm war leen ñaanal. gannaaw Italie nag sëriñ baa ngi sant bu baax waa Amérique ci Bamba Day bi ñoom it fépp fu taalibe nekk biir Amérique ak fu mu mën a bàyyeekoo sëriñ bi nee na mu ngi lay sant. mu ngi lay gërëm sëriñ bi nee na cant gi mi ngi koy teg ci loxo yi sëriñ fàllu Samb bi nga xam ne moo jiite fondation bi ak sëriñ Pape Set Dramé mi nga xam ne moo jiite Mika fépp foo xam ne nii taalibee nga fa ci biir Amérique rek cantuk sëriñ bi foo mën a nekk fekk si na la fa ñu teg ko ci sa loxo ak ñaan yoo xam ne nii kat am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sëriñ bi nee na mu ngi sant mboolem waa Amérique rek ak fépp fu nu mën a jóge ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey di ko liggéeyee lislaam sëriñ bi nee na mu ngi sant waa Suisse yëpp di jël cant gi nag di ko toog ci loxoy sëriñ Mballo Ndiaye di leen ñaanal rek ci waxtaan woowu nga xam ne yéen a ngi koy def pour taxawal fédération bu am solo boobu yàlla na ko sunu borom nangu. sëriñ bi mu ngi sant bu baax waa Espagne. Espagne seen taxawaay it sëriñ bi nee na gis na ko fépp fu taalibe nekk ci biir Espagne sëriñ Maam Moor mu moom Mamadou Mourtada mu ngi lay sant fépp fu daayira nekk fépp fu waay mën a jóge ñëw teew ci jataay yu am solo yooyu sëriñ bi nee mu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp cant gi nag Espagne dañ koy teg ci yi Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite lii di fédération bi di sant bu baax Serigne Mor Tambédou mi nga xam ne moom mooy président d'honneur bi te yoroon liggéey bi ba xëy teg ko tey ci loxo yi Serigne Mbacke njaay cant googu nag Serigne bi mu ngi koy teg seen loxo fépp fu taalibe nekk biir Espagne Serigne baa ngi lay sant fépp fu daayira nekk biir Espagne Serigne baa ngi lay sant Serigne baa ngi sant fédération bi yépp di santit mbooleem këru diine yi nga xam ne fekk nañu ko foofu ñëw nañ ci kër Serigne Touba gi ànd nañu moom ci jataay bi bàyyiwul kenn képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha laa te nekkoon ci liggéey bi rek Serigne bi nee mu ngi lay sant di santit kilifa yi nga xam ne nii ñooy kilifa aada yi kilifa yi nga nekk Espagne ubbi nañ seen bunt fekk si nañ sëñ bi fépp foo xam ne nekk na fa ngir ñu waxtaanee rek nekkinu sénégalais yi nan la war a gën a ñoŋee ci biir dëkk ba ñoom it sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant di sant corps diplomatique bi dooree ko ci ambassadeur ci consul bàyyiwul kenn soxna yi sëñ bi gis na seen taxawaay ak seen pas-pas ci liggéey bi moo taxit mu ngi leen di beral cant ak ndaw ñi nga xam ne lépp lu ñuy def ñoom lañ koy defal di sant bu baax it waa Portugal cant gi nag koy teg ci loxoy Baye Cheikh sëy ak Baye Abdou sëy fépp fu taalibe nekk biir Portugal ak dëkk yi ñu bàyyeekoo yépp ñëw fekk sëriñ bi sëriñ bi nee na mu ngi sant Portugal yépp kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam te ñu ñëwoon ànd ak ñun ci liggéey bi sëriñ bi nee na mu leen di sant ñoom ñëpp di sant mbooleem diaspora bi muy Europe di Amérique bàyyiwul kenn di ñaan yàlla sunu borom faj seen aajo la tax ngeen jóg bàyyi seen jaboot te fu ñu leen fekk ngeen bàyyi liggéey ba ngeen di def ñëw ñu ànd di liggéey lislaam sëriñ bi nee na loolu gis na ko yëg na ko ñu ngi naan nag sunu borom mi nga xam ne moo am fay mu fay leen gën ji fay ci barke Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul te ñu yàgg koo teewee te kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf